أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله الخالد عن شيخ الشيوخ برزق البرازيق تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد بن محمد الصالح بن التجاني وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه القويم إلى يوم الدين ورد الله الخالد عن سليل عثمان سيد الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وعن شيقه المجاهد الأكبر والولي, والولي الشهير مولانا أبي العباس مولانا أبي الحفص شيخنا الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وأيد الله ونصر الخليفة العام لطائفة التجاني والخليفة العام لجميع أسرة العمرية مولاي سيدي أبي بكر سي ومولاي سيدي جرن محمد البشير تال أيدهما الله ونصرهما mbokki jullit yi gannaaw bi nu sante yàlla suñu boroom cant gu yelloog jëmmam ju tedd ju màgg ja moom mi nga xam ni moom rek moo yeeyoo cant fa lillaahi alhamdu fa lillaahi alhamdu fa lillaahi alhamdu wa julli ci sangu-sang yi muy sayyidul wujud wa alimi shuhud sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla suñu boroom salaatoom ak salaat ak salaamam yàlla bu mu dañ mukk di ko dotti ci kaw sang bu tedd boobu di sayyidil wujud wa alimi shuhud sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam di tubaarakallaahu ñaanal yàlla suñu sëriñ mawlaay cheikh ahmad tijaani moom it yàlla bu dañ yàlla dañ di wàccee ay waamey leer ngëneel ci tëraayam bu tedd bële ca rawdoom bu tedd bële ca faas di ñaanal yàlla Thierno Mouhamadul Bachir ak sëñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal seen fan wéeral seen cër te boole ñoo ñaan googu ak ñoom ak mboole seen julit yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci ñoom lañuy jaare rek nuyu kuy xalif général te nekk ci réew mi ci ñoom la ñuy jaare rek nuyu kuy xalif général te nekk ci réew mi nuyu kilifay àdduna bi yëpp bàyyiwuñ kenn waaye ndokkale jullit ñëpp ci weer wu tedd wu màgg wi rawatina waxtu wi ñi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel ci émission Miftahoul Houda ànd ak seen mbokku daara Pape Makhtar Silla ak Oustaz Mouhamadou Nil Mansour di jéggalu nag suñu auditeurs yëpp tey émission bi xaw a yéex gi mu xaw a yéex a tàmbali a ah, noonu la yenn saa doomu aadama dafay am ngànt su amee ngànt nag faw rek ñi mu seqal liggéey wala ñumu mu seqal mbir ñu xam ni ngànt am ñu bàyyi xel loola te xam ne ñun suñu auditeurs yëpp macha allahu rabbi bàyyi nañu xel loolu nuyu ci suñu auditeur Daouda Ndiaye bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin bu Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha ziyaar ko bu baax xaj bi si ñu ngi lay nuyu di la ziyaar xaj bi loo di nuyu oustaz Moustapha Silla bu mbax ak waa rimbax yëpp tubaarakallaaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm defal ñu ko defal ko mbooloo mi jullit ci barke Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa Miftaahul Huda yëpp nag ñiy déglu Miftaahul Huda ak foo mënti nekk rek Pape Makhtar mi ngi lay nuyu di leen baalu xaq nag di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nu yàlla booli jéggal ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ndokkeel jullit ñëpp nag ci weer wu tedd wu sell wu màgg wi ñu nekk muy shahru ramadan al mubarak ñaan yàlla tàmbali nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nu yàlla may wér ak kàttan ba ñu àggale lépp ci baatu alhamdu lillahi rabbil alamina loolu yomb na yàlla sunu boroom yàlla nu ko yàlla defal ñu bokk ci ñiy fekke kooru déwén ya ba weesu ko ci barke yonent bi te lépp ñu ànd ak wér ñaan yàlla itam suñu bakkaar yi ñu fekkee yépp yàlla nañ ko yàlla jéggal yërmande yàlla yàlla na ko yàlla sotti ci suñuy kaw bàkkaar suturaam yàlla nañ ko làmbal ci suñu ay ayib ngëneelam yu tedd yu sell yu màgg yi yàlla ko yàlla def ci suñu kaw boole ñu ci jaamam yi nga xam ni def leen jagleel ngëneelam yi ndax yaxtassu bi rahmatihi man yashaau ne sama ngëneel yi man maa koy jage jagleel ku neex kon yàlla nañ bokk ca ña bokk ca dogalu yàlla ba ca ëzël ni yàlla dana leen làmb ci mbalaani yërmande yi làmb leen ci mbalaani sutura yi ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax loolu rek moom moo jara ñaan ndax mag ñi dañuy wax ni jàmbar amul déedéet ku yàlla dimbale rek moo am koy naw ci jaamu yàlla walla nga koy naw ci fegu wala nga koy naw ci bëgg yàlla wala nga koy naw ci bëgg yonent bi wala nga koy naw ci bëgg alquran ngëneel la bu yàlla def rek ci moom waaye su ko yàlla bàyyee woon ak boppam mu mel ni ñëpp ku yàlla bàyyeeg sa bopp nga mel ni ñëpp lu tax ku yàlla bàyyeeg sa bopp nga mel ni ñëpp nit doomu aadama dafa am ay noon yu ko topp la jël ku wét waaw la ko huit huit huit ñu ngi ci ndeyjooram toog di ko xaar ñu ngi ci càmmooñam toog di ko xaar ñu ngi ci kanamam toog di ko xaar ñu ngi ci ginnaawam toog di ko xaar te ñetti jubluwaay yooyu rek la nit am parce que nit mënul yéeg dem ci kaw mënuy dund dugg ci suuf ah kon ñeent yi rek ci nga mën a dem sa ndeyjoor sa càmmooñ sa kanam sa ginnaaw mu am ñeenti ñoo xam ne nag sa noon la kenn ku nekk ma nga taxaw foofa di la xaar te kenn ki moom daf ko waxoon yàlla muy iblis mu ne ah dinaa leen xaar nag waaw bi mu koy wax dafa ne ko seen yoon yi nii jaar danaa ci xëppeerlu xëppeerlu mooy nit ku ñëw ba ci mbedd nga xam ni mbedd mi rek nga mën a jaar amoo feneen fooy jaar mu toog ci mbedd bi pare ubbi ñaari tànkam ba ñaari tànk yi fees dell mbedd mi nga xam ni mënoo jaar fenn furul da koy jéegi loolu mooy xëppéerlu toog ci diggu yoon ubbi say toog say tànk teg sa toogukaay ci suuf nga xam ni kenn du la mën a romb ku la jéggi nga gaañ ko ku wetu nga lonk ko ku taxaw nga xëcc mu ñëw kon fan la nit di mucce mooy nga làqatu ci ki ëpp doole kooku muy yàlla moo tax moom mi waxoon loolu jullit ñi suñuy muslu ci moom ak di làqatu ci moom ci kenn rek moo am dooley kàttanu musal leen muy yàlla moo tax dangay wax auzu billahi min asheytaani rajimi moo tax yàlla wàcceel ñu koor pour lan pour ñu jege yàlla pour ñu bëgg yàlla pour ñu sopp yàlla pour buumam xabailu shayatin buumam yi nga xam ne mi ngi koy sànni guddi di ko sànni bëccëg te du tàyyel mukk mukk mukk seytaane ci kenn rek la tàyyel mooy ki mu jàpp ba téye ko kooku moom faaleetu ko waaye féeg yaa ngi jéem a ñot ñoti di wut ngërëmal yàlla féeg yaa ngi jéem a ñot ñoti di sopp sayiduna muhammad wala nga koy sopp soppalu wala ngay bëgg alquran di bëgg saxaaba ya bëgg yonent yi bëgg gaa yu baax yi bëgg def lu baax dëddu sàmm moytandiku téye sa làmmiñ moom du la may jàmm yow mukk ñi may jàmm yow bokkoo ci rawatina nag nga nekk ndaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mas a laaj iblis ne ko yow koo gën a bañ ci àdduna bi mu ne ko ñaar ñaar laa gën a bañ ci àdduna bi yonent bi wax ak moom de mu ko kan ak mu ne ko kenn ki mooy yow yow yow moom laa gën a bañ ci li yàlla bind moom yonent bi moo yey moo yey xam nga lu tax ma ni la moo yey moom iblis koo xam ne boo ko soppee dem aljanna boo ko gëmee dem aljanna bu ñu tuddee turam ngay julli ci moom ñu bindal la ay tiyaaba lim lay digal soo ko defee mucc lim lay tere soo ko bàyyee mucc ay waxam boo ko jëfee sa àdduna jag sa àllaaxira jag waxi ay saxaabam boo ko jëfee sa àdduna jag sa àllaaxira jag waxi ay soxnaam boo ko jëfee sa àdduna jag sa àllaaxira jag waxu kenn ku ma dégg yonent bi wax mu waxaat ca kaw waxu yonent bi ndax waxu yonent bi su ko kenn dee wax mën na am junni wax ndax yonent bee toll noonu ci déggin ci firi ci jëf ci lépp kon moom moo yey lu ko yow laa gën a bañ yonent bi sallallahu alayhi wa ni ko gannaaw man kan mu ni ko ndaw maanaam xale moo xam bu góor la moo xam bu jigéen la buy ñot ñoti ci wàllu yàlla buy ñot ñoti ci wàllu yàlla mooy nit koo xam ne yaa ngi jéem góor góorlu di def effort sa digganteeg sa boroom rawatina nga nekk tuut tànk nga nekk xale nga nekk xale mu ni ko rawatina nga nekk xale nekk tout tànk ba pare yaa ngi góor góorlu ci sa digganteeg ci sa borom moo tax mu ne ko yow laa gën a bañ ak xale boo xam ne dafay góor góorlu ci wàllu yàllam léegi nag ñun ñeent yi nga xam ne ñoo ñu topp te kenn ki tudd naa la ko muy iblis il faut nga xeex ak beneen noon pour man mucc ci iblis boobu mooy ban mooy sa bakkan waaw ah, sa bakkan xam nga iblis cëri doomu aadama yëpp bakkan li ci gën soxla bakkan sa bakkan li gën a soxla lu tax ci bakkan bi lay jaar di ka rafetalal lu rafetul di ko baaxal lu baaxul di ko neexal lu neexul di ko yiwal lu yiwul di ko waxloo lu waxluwul di ko bañloo loo xam ni kenn waru ko bañ loolu iblis ci sa bakkan lay jaar pour def loolu yooyu moo tax boo demee ci suuratu Yuusuf wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bi suu'i mu teg ci illaa man rahima rabbi mooy li ma la wax ni jàmbaar amul ku yàlla bàyyeeg sa bopp nga daanu ku yà eh, déedéet ku yàlla bàyyeeg sa bopp laa wax nga daanu comme Iblis nag moom xam na ni bakkan fa lay mën a jaar bu jaaree ci bakkan man am li mu bëgg ci doomu aadama mu jaar ci bakkan léegi iblis a ngi lay xaar pour daaneel la sa bakkan a ngi lay xaar pour daaneel la muy ñaari noon iblis moom daf la wër ndomb taxaw di la xaar di jaar ci sa bakkan bànneex tamit taxaw pour jaar yitam sa bakkan xam nga yenn saa yi nga gis nit def dara lu defuwul nga dégg ku koy yedd ni ah kii dafa topp bakkanam rek dégg nga lool dafa topp bakkanam maanaam sa bakkan moo la ommat jëmale ci iblis nga topp ko sa bakkan moo la ommat jëmale ca bànneex nga topp ko moo tax mag ñi di wax ni ku bakkan nekk sa kilifa nekk sa njiit di la ommat di la tegte di la tette di la tegtal dana la daaneel ci pax mu buggutoon daanu wala mu daaneel la ci pax moo xam ne boo fa daanoo dootoo génn dootoo génn de kon iblis a ngi la topp sa bakkan a ngi la topp bànneex a ngi la topp àdduna a ngi la topp àddunaa ngi la topp moo tax yii na ku ñu topp bul wut beneen noon ku iblis di sa noon sa bakkan di sa noon bànneexu bakkan di sa noon àdduna di sa noon looy doyee beneen noonu nit loo koy doyee bul yokkal sa bopp noon jàppal ni amaatoon noon ñeenti noon yi nga am ci àdduna diw sama noon la wax bu yàqu la parce que noonu boo xam ne mënul ci yow dara day wax rek ak a fexe noonu dëgg dëgg dëgg mooy iblis noonu dëgg dëgg mooy sa bakkan noonu dëgg dëgg mooy bànneex bi nga xam ni dugg na ci sa bakkan ba mënoo ci maîtriser ci sa bopp nga topp sa bakkan noonu dëgg dëgg dëgg mooy àdduna parce que moo lay rafetalal lu rafetul moo lay dig lum la dul jox moo lay wan lu amul moo lay wax lu nekkul nga topp ca rek di daw di daw rek di daw rek di daw rek di daw rek pour ni bu ma ko jotee noppalu bu ma ko jotee am li ma bëgg te doo ko jot bay noppalu doo ko jot bay am li nga bëgg léegi nag li nga waroon def pour mun noppal la ëllëg yomal qiyaam nga wàcc ko ndax da koy topp ba dee dab la te dee al mawtu yati baxtatan ah, te wal xabru sunduqul amal léegi yaa ngi daw àdd yaa ngi daw di topp àdduna te ndekete yow bi ngay daw di topp àdduna de mi ngi ci sa gannaaw di la topp te moom buy ñëw du la tàggu daf lay bett dee buy ñëw du lay bett amul ku ma a dee te bàyyi woo final projet boo waxoon ne ay bii bu ma ko àggalee nangam nangam ay lii su ma ko amoon lii su ma ko defoon lii nangam nangam su projet boobu jeexee beneen ñëw a ah, beneen ñëw <laughs> heure bii daaw ci koor gi am na koo xam ne ngeen ay eh, sama kër gi su ma dundoon boo mu àgg ren ma ngi ci kër ga àgg na léegi ma ngeen ah su ma amoon oto. dégg nga su amee oto yàlla may ko benn oto mu ne ay man su amoon beneen pàkk fondement ko di ko su amee benn fondement ko tabax ko commencé di ko loué ne ay suma amaatoon beneen chaque jour mébét yi ñu ngi ci sa kanam bëgg-bëgg yi ñu ngi ci sa kanam waaw su fekkee ne loolu boole woo ko ak di liggéeyal dee ak sa bàmmeel ak li nga war a fekki mais nooy def adduna bii nga xam ne ku fi nekk rek ku fi nekk soo amul dara itam daañ la dimbali te du tee nga tumuraanke àdduna laa wax soo juddoo ci kër sa baay nekk fa sa yaay nekk fa doo fa taaw say mag nekk fa say bàjjen nekk fa say tante nekk fa ñépp nekk ci kër gi nga ni yàcc ni yasar ni yasax nanguwul liggéey dara di nga lekk di nga naan di nga tëdd soo feebaree dinañ la faj waaye doo fi nekk nekkin bu neex ndax da nga am aajo yoo xam ne kenn du la ko fajal waa ndegam àdduna ngay nekk liggéeyoo fii pour sa bopp am problème te am na ñu lay dimbale waa àllaaxira gi nga jëm nga xam ni bopp sa bopp la kenn du fa dimbale kenn ah kenn du fa dimbale kenn moom bopp sa bopp la sa baay faalewu la sa yaay faalewu la sa maam faalewu la sa doom faalewu la sa jarbaat faalewu la sa taalibe faalewu la sa faale faalewu la kooku bopp sa bopp la kooku du waxi Pape si Sylla waxi yàlla la yow ma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi li kulli mri'in minhum yawma izin sha'nun yuxnii kenn ku nekk problème am da koy doy saak waaw kenn ku nekk problème am doy na ko sëkk xam nga ki am problème bi ko doy sëkk problème mu jàmbur moom waxaale wuñ ko du ca wax kon kenn ku nekk da nga war a waajal sa si sa diggante ak sa boroom ndeysaan waaj gi nag du dara mooy la la yàlla sant def ko lam la tere bàyyi ko mu jeex takk su la seytaane juumloo ba nga daanu ci pax nga tuub jéggalu yàlla subhaanahu wa taala waxtu yi su jotee julli nga julli ñu ngi ci weer wu tedd wu sell wu barkeel woo xam ne nit mën na ci profito bakkaaram yi mu amoon yëpp mu tuub ko ci kanamu yàlla nit mën na ci profito tamit liggéey ci yiw liggéeyal ci boppam yiw woo xam ni kenn xamul nu mu toll kenn xamu ko nit mën na ko ci weeru koor weer woo xam ni yiw wi dañ koy ful weer woo xam ni yàlla bàyyiwul bàyyilul xeetu yonent bi benn espaas ci koor gi lu dul ma nga leen cay jéggal lu dul ma nga cay nangu seen tuub lu dul ma nga leen di yërëm lu dul ma ngay dolli seeni tiyaaba ah xam nga ñun ci fukki fan yu njëkk yi mu nu yërmandi la waaw ñaanal yàlla yërmandeem gi yërmande yàlla gi nag yàlla waxoon na ci alquran ni inna rahmatallahi aha ñu ni ko ah mu ni xaribun mu ni waaw mu ni mu ni minal muxsinina ah nee na yërmande yàlla lu jege la ñëpp ni tekk di xool fa mu nekk xam nga dafa jege lu jege yow li ngay seet lu mi ngi lu jege la ngay wër gauche wër droite fan la nekk man gisuma ko fu mu nekk ñun la eh yàlla nee na yërmandeem lu jege la léegi ngay xalaat yow ci sa xel fu mu nekk fu ma ko mën a amee yàlla nee na minal muhsinina jege na waaye jegewul ñëpp ñan la jege mooy ñiy def lu rafet parce que def lu rafet moo lay jegeel yàlla te yërmandi yàlla mi ngi ci yàlla soo deful lu rafet da ngay yàlla soo soree yàlla kon da ngay sori yërmande yàlla aha yërmande ji mooy yàlla jëmmi yàlla ji mooy yërmandeem gi rek léegi nag yàlla sooy def lu rafet di def lu baax da ngay da koy jege nit si jëf yi ngay jëf julli yi woor yi azaka yi soo amee loo ko génneewe jàng alquran yi zikkar yi téye sa làmmiñ yi wax lu baax li def lu baax bàyyi safaan yi la yàlla tere loolu moo lay jegeel yàlla bañ a julli bañ a woor bañ a joxe azaka wax lu la neex def lu la neex santaane yàlla yi sa yoon nekku si loolu moo lay soril yàlla kon ki sore yàlla sore na yàlla ki dul jaamu yàlla pour nga dégg kii jaamu yàlla nag jege na yërmandi yàlla inna rahmatillahi garibun min al muhsinina yàlla ni fukk yu njëkk yi sama yërmandi laa ciy wàccee an yàlla boole ci jaamam yi muy yërëm ëllëg yowmal xiyaam baada tuwalil umari wa udra wa idraakil mun naa ginnaaw bi ñu dundee fan yu gudd ak wér am jot suñu mébét suñu digganteeg suñu boroom deewaale xol yu set yu sel yàlla bu ñu deewaale ak bàkkaar yàlla bu ñu deewaale ak xàq yàlla bu ñu deewaale ak bor yooyu yëpp bu ñu ko amee ba pare yàlla nañ fa fekk yërmandi yàlla ak suturaam ak njéggalam ci suñu kaw bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu weer wi kon fu yu njëkk yërmande la profitool ndax xam nga nit mënul dund sans muy am ay rëcc-rëcc yonent bi dafa wax ni inna allaha kataba alxasanaati wa sayyiaati suma bay suma bayyana zalika yonent bi ne ne yàlla dafa bind yiw ak safaan mu leeral diggante yiw ak safaan waaye déglul yàlla mbaaxam mu fa mën hëmm bi xasanatin fa lam yacmalha katabaha allahu lahu indahu xasanatan kaamilatan <laughs> te ki moo mën فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bépp boo xam ne dafa yittewoo def yiw yiw waaye defu ko fàtte na wala am na contretemps moo tax defu ko masalan tey yaa ngi jël sa kurus ni xaaral ma julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon jàpp julli ñaari rakka téye kurus gi bëgg julli ci yonent bi téeméer yoon wala wax subhaanallahi téeméer yoon wala alhamdulilah téeméer yoon wala jàpp nga julli ni xaaral ma jàng ñaari xisba alquran wala benn xisba alquran wala benn saar fi nga toogee téye téere bi rek wala kurus gi rek sa benn mbokku taalibe wala sa mbokku jullit ndax ni asalaamaaleykum ma ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah mu daal yegsi nuyu la nga fay ko ngeen commencé waxtaan mun laa man di sëriñ dama fi jaaroon rek ah waaw Thierno Bachir man dama fi jaaroon rek baan pour ñu waxtaan ndax gëj naa gis lool te yow ngay sama soppe te soppe warul gëj a gis soppeem Bachir ni waaw waaw waa ji toog di wax di wax di wax ngeen di waxtaan ngeen di waxtaan bu mu jël sa temps boobu yépp ba balaa mu fay jóge sax waxtu julli jot na nga jóg julli war a nekkaat ci yeneen léegi gis nga téeméeri salaatul fatiha yooyu nga bëggoon def wala téeméeri salaatu ala nabi wala xisbu alquran boobu nga yitte woo woon yéene pour def ko loolu tax defuloo ko dañ lay bindal tiyaabay ku ko def ba mu mat sëkk nag kaamila la yàlla wax ba mu mat sëkk waxu ni ay soo ko defoon ñu defal la euh, vingt pour pour euh, vingt vingt sur vingt euh, léegi defoo ko dañ lay defal quinze wala dix sur vingt déedéet vingt sur vingt lañ lay defal léegi nag ñu ne waaw kon su fekkee ne waa def na ko nag yonent bi ne fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha allahu indahu achra ila sab'i miati ila adaafin kathiratin léegi nag waaj ji bi mu bëggee def loolu bi mu jàppee ba pare moom ba Bachiru Baan amul kenn ñëwul mu jàpp ba pare julli ñaar rakkam téye kurusam def téeméer salaatul fatiha wala mu jàng ñaar xisbu alquran am wala mu def subhanallah téeméer kenn kenn kenn kenn kenn ñëwul def na ko nim mu ko waxee woon ni mu ko bëggee woon mu ni fa in hamma biha bu fekki bëgg na koo def amul dara lu ko tee mu def ko fa amilaa mu jëf ko yonent bi nee na katabaha allahu indahu yàlla daf koy bind fa moom achara xasanaatin benn bu nekk mu defal ko ko fukki yiw nee na du ca dem de nee na yàlla dana ko ful ba mu àgg si juróom ñaari téeméer nee na ko ful bu ful ko ay ful yu bare bare bare ca yàlla fulu yàlla ful yàlla fulu yàlla mu toll maanaam la bëgg wax xam nga yenn saa yi nga ca xadis nga dégg ñu ni yonent bi nee na man salla alayya salaatan waxidatan sallallahu alayhi ashra waaw léegi yow imagineel fukki yàlla ah, fukki yàlla nan lay toll parce que kenn ku nekk booy def ni nga tollu ngay defe waaw kenn ku nekk booy toll booy def ni nga toll ngay defe gis nga tey Pape Makhtar Sylla mën naa jël kurusam di jàng salaatul faatixi yàlla nga koy nangul ci yéen mëndeem mi ngi xam salaatu bi li muy wax li muy firi yàlla nga koy nangul ci yërmandeem mi ngi xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom yàlla nga koy nangul ci yërmandeem waaye am na kenn koo xam ne xoola junniy salaatul faatixi yi Pape Makhtar Sylla di di jàng kooku benn peru salaatul faatixem wecci na wecciwaat wecciwaat wecciwaat junniy salaatul faatixi yi Pape Makhtar di jàng te moo ne salaatu bi benn la rek lu tax laka ca yàlla xamal ak naka ko yàlla xamale ak yoon yam ca xam Pape Makhtar xamu ko ca ah waa léegi loolu topp ko nag muy dem nga koy topp muy dem nga koy topp ba àgg ci Cheikh Tijane mi nga xam ni salaatul fatiha ci moom lañ ko njëkk wàccee wàccee xam ni wàcce ndigalu joxe la ak doxal même su amee ku ko njëkk a gis wala ñu ko njëkk gis dañ leen ko jox pour ñu barkeelu ko waaye wàccee pour mu dox pour joxe ci ngëneel kooku Cheikhu Tijane mooy borom mi ngi mel ne yonent yàlla Moussa rek ak sunu borom ak Seydina Muhammad am na yëf yoo xam ni ci zahir da ngay wax ni yonent yàlla Moussa moo ko njëkk a gis yonent bi donte ci baatin yonent bee ko njëkk a gis lépp waaye am na yëf ak yëfaat yoo xam ni bi ko yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wassalaam dee laaj suñu borom lu ko wax daf naan ko lii xeetu Ahmed ñëw ko moom te boobu ñëwaguñ waaye Moussa gis na yëf yi gis na yëfaat yi mi ngi koy laaj bu mujj Moussa ni yàlla man waaw tee nga ma boole ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbir yi kat moom mi ngi bëgg a xeetu muhammad yi lépp luñ fi laal rek nga ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah waaye luñ fi laal nga ni muhammad xataa si jëmm ji so bu doon ak muhammad doo am loolu xam nga ko kon koy lépp moom la ah lépp yonent bi la sallallahu alayhi wa kon léegi nga imaginer fulu yàlla fukk fulu yàlla juróom-ñaar téeméer fulu yàlla ba ay ful yu bare noonu nan lay toll lii yëpp yàlla day wane ni maa bëgg samay jaam maa bëgg xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa leen bëgg xeetu yonent bi mooy ñëpp xeetu yonent bi leen ñëpp ñëpp parce que képp koo xam ne gëm nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek yow ci xeetam nga bokk ku gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ci xeetu yonent bi nga bokk ku gëm rek ci xeetam nga bokk yonent yàlla Moussa ci xeet yeneen ci bi la bokk gëm na ko ah gëm na ko te gisante wuñu nii ci kaw àdduna mais gëm na yonent bi yeneen yonent yëpp ci xeetu yonent bi lañ bokk seen nit ña ña seen yonent yi waxoon ni man kat kenn tax ma ñëw mission bi bu woon kooku du ma ñëw muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bu leen fekkee ci kaw suuf na ngeen ko gëm ñooñu gëm la leen seen yonent ba wax ndax gëm nañ seen yonent boobu ñooñ ci xeetu yonent bi lañ bokk sallallahu alayhi wa sallam léegi yonent nag ni yàlla nee na waman hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba allahu indahu hasanatan yonent bi waaw léegi ki nga xam ne moom dafa yittewoo def lu bon waa ji dafa yittewoo def lu bon waaye bi mu ko yittewoo woo yàlla dimbale waat na ko ba defu ko yaa bëgg a def lu bon lu bon ak lu bon rek loo xalaat rek wax naa ko mu ngi ci biir li may jàngale wala li may fàttali waa ji dafa yittewoo def lu bon waaye lu bon li mu yittewoo woo defu ko yonent bi ne ku yittewoo lu bon te defoo lu bon la yàlla bindal la benn tiyaaba benn yiw waxul mu bindal la benn bu bon de mu bindal la benn tiyaaba yow yaa bëggoon def lu bon far nga ko bàyyi ñu bindal la tiyaaba moo ne fii ci àdduna doxewul noonu de déedéet soo fekkoon kenn ci sa muy bëgg a sàcc waaye sàccul day bëgg a sàcc waaye sàccu la sàccu la jotu laa sàcc jotu la sàcc de jëlu fa dara soo ko jàppee soo ko yóbbu police dañ koy tëj dañ koy tëj parce que dañ ko yow dangaa bëggoon a sàcc dañ la faa fekk buñ la fa sàcc buñ la fa fekkul woon da ngay sàcc donte nee na non non man dama bëggoon sàcc de. waaye bi ma duggee ba ci biir kër gi sama xel yedd na ma ma xam ni yàlla tere na ma sàcc yonent bi tere na ko te sàcc lu ni fu yif ku yiw may génnaat kër gi ba may génnaat kër gi ci laa dajeeg waa ji bu ma doon sàcc kay mën naa wekki tele bi kenn nekku fa gis naa lii kenn jëlu ko waaye laaj ko ba xam ci buntu kër gi lan daje te yoruma dara may génn di dem waa ji ne waaw ci buntu kër gi laa dajante moom muy génn di dem laaj naa ko loo fi doon wut mu ne ma damaa bëggoon a sàcc télé bi waaye xalaat naa daal sama digganteeg sama borom ma bàyyi fi télé bi sàcc ma ko dañ koy tëj donte peen ba du yem ak peenu ki sàcc donte peen ba du yem ak peenu ku ku ku kuy miim ndax moom wax na dëgg waaye daan ko tëj daan ko tëj yenent bi nag nii yàlla moom su nit ki yittewoo lu bon lu bon loolu mu yittewoo defu ko yàlla daf koy jéggal mu ni su fekkee ni def na ko nag yonent bi nee na yàlla muñal ko diir su fekkee tuub na mu baal ko su fekkee def na lu baax mu baal ko su fekkee wax na fa laa ilaha laa walla julli ci yonent bi mu baal ko su ko muñalee diir deful ci yooyu benn mu ni bind leen benn ñaaw téefam ba kese loolu la suma maam alaaji abdu daan wax ni nañ góor-góorlu ba suñu yi benn benn suñuy fukk-fukk ëpp ko yàlla def ci man dégg ak def ko ci yéen def ko ci mbooloo mi jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 88 628 10 95 xam naa tey li ñu tardé moo tax te waxtu yi daanaki mat na su amee benn auditeur bu nekk ci ligne bi ñu jël ko te mu nuyoo ñu saafante ci koor gi rek tubaarakallaahu ñu daal di yëkkati jataay bi parce que journalist yaa ngi taxaw wara tubaarakallaahu dugg ñoom tamit joxe seen journal waaye ñu ngi jéggalu auditeurs yëpp ak auditrices yëpp tey wax dëgg yàlla ci ubbi bi ñu ñàkk ubbi liiñ bi ndax waxtu yu jot na maman bu ubbee tamit xam naa gars yi dañ may sëpp fii rek eh, ak seeni këyit kon tëjal liiñ bi ma jéggalu auditeurs yëpp rek incha allah ñu daan woot yëpp maa ngi leen di jéggalu di leen baalu xaq di wax ni tey émission bi dafa xaw a tardé tuuti loolu moo tax di ñaan yàlla defal ñu tawféex defal leen ko defal ko mboolem julit may nu wér may leen ko may ko mboolem julit nangul ñu suñuy te may ñu wér ak kàttan guñ ko àggalee jàppandal ñu ay ndogu jàppandal ñu ay xëdd jàppandal dépense koor yëpp yëpp yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax koor dafa laaj dépense wax dëgg yàlla daf ko laaj dafa laaj dépense dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daf ko laaj kon nag yooyu yomb na yàlla te yàlla ñu ko sant te ñu ngi ci yàlla ñal na nga ñu may wér ak kattan waaye jàppandal ñu xéewal yuñ ci xéewaloo ci barke yonent bi ba jàppandal ñu sax xéewal yoo xam ne ëpp na suñuy bëgg-bëgg ak suñuy aajo ak suñuy dépense ak suñuy lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi nuyu Thierno Hamidou Yoro Bane bu baax di ko ziar di ko ndokkeele ci weer wu tedd bi di ko ñaanal yàlla mu may ko wér may ko kàttan ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba li mu yéene liggéeyal diine ci yàlla may ko kàttan mu àggale lépp te fekke lépp ci barke yonent bi li muy yéene liggéeyal tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijane yàlla may ko mu àggale ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy yéene liggéeyal kër maamam Cheikh El Hadj Omar al Fouti yàlla mottali ko waaye li muy yéene defal baayam sëriñam soppeem léppam bëtam noppam xelam xalaatam lépp muy mu Mouhamadul Bachiru Taal nga xam ni moom xam na ni yamale wu ko mbindeef ci kaw suuf gannaaw yàlla yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah saxaaba yaak cheikhu Tidiane ak ay wéyjuram Thierno Mouhamadul Bachirou Tall kenn ku nekk xam na ni Thierno Hamidou jox na ko wàccuwaay bu rëy ah, ko doon xam nga wéet ak moom Thierno Hamidou eh, ndaw woote ni ko ah, Thierno Bachir moo la soxla ci téléphone bi bu koy wuyu du toog ci kaw day toog ci suuf. bu koy wuyu penku lay jublu bu koy wuyu day sumi mbaxaneem bu koy wuyu day jël loxoom bi teg ko ci mu baal ma ci kaw poojam ni tekk mel ni ki muy waxaat ngi jàkkaarloog moom te moom loolu xam naa ne mi ngi jàkkaarloog moom ko ñun daf ñuy jàngalaat foofu sax yar ci taalibeeg sëriñ yar ci doom ak baay ndax Thierno Bachir baayam la waaye Thierno Bachir itam sëriñ la sëriñam la li mu ko yéene liggéeyal nag yàlla ko yàlla mottalil ci barke yonent bi sallallahu alayhi te ñun ñëpp ñu fekkee te bokk nag ci liggéey ba ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen daara Pape Makhtar Sylla moo leen doon defal seen émission Miftaahul Huda waroon ko seq ak oustaz Mouhamadul Mansour Fall waaye tey Mansour dafa am gant ñu ngi koy nangul ngàntam ñu ngi leen di dig daje incha allahu rabbi ajuma bii di ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.